ma bu fekkee Ousmane Sonko ay mbokkam taxaw nañ ne du dem projet. Mhm. te Ousmane nag parti bu am doole ci àdduna bi la bokk. lépp luñ ñu taxaw ne bëgguñu ko à 60 pour cent mën nañ ko réussir. ñal mhm. benn. Mhm. bu doon man maa Macky Sall. Ousmane Sonko bi ma gis. bàyyee état bi Sénégal militaire yi. moom la gën a jox Ousmane Sonko bu doon man la. bu doon yow la bu doon man maa Macky Sall. daf la ci doyul wala. xam nga opposant mhm. li gën a garaaw la leen di wax ngeen seetlu ko. Mhm. bu njëkk avant 2012. Mhm. boo demee TFM wala benn bërëb. da ngay fekk gis ñu invité ay parti politique PDS wala PS wala nangam. ñoom ñoo ñu invité la ñoo bokk benn oto bu ñu ànd dem def émission présidentielle ñu mais léegi diggante opposant ak pouvoir bi ay noonu lañu noon noonu. mooy ay noonu lañu noon fi ni moom gat sa gat sa la amatu kenn mhm. ku njëkk sa morom escanté ko mhm. loolu kay ñaan ko yàlla mhm, kay ñaan ko yàlla léegi nag Sonko tamit nag lebal nañ ko loo xam ne lu bëri lu mu war a fayu la parce que spectacle yi ñu ko tegalee pour gàllankoor ko ay góom la def ci xolam ak ñi muy àndal ëllëg bu ko yàlla moom président de la République da bëgg ku kakul mu fayu waaye nag moom it lancé na benn benn projet politique boo xam ne ci njub te xam nga ne gars yu jubuñu ci préparation ëllëg wutoo lépp alalu askan wu ñu jël mu saytu ko. mu tabarke de ba nga déggee Ziguinchor mu ne même junni ku ko ci mairie bi dana la dana la porte plainte yóbbalu ci yow ñu àtt. moom Ousmane Sonko waaw waaw te fii gars am nañu sàcc junniy milliards daanaka lu ko. <laughs> dëgg la waaw ñun ñëpp nag xam na leen di xaar. xam nañu leen di xaar mhm. dëgg fa xam nañu leen di xaar Ousmane Sonko falo. Ousmane Sonko falo. xam nañu leen di xaar. xam man nag dama ne la. Mhm. gëmuma ak falo Ousmane Sonko. Mhm. gëmoo ko dama ko gëmul. parce que lim commencé wane la wala. mu ngi mel ni man ñu jàpp na fragment dëll rek. Mhm. d'accord may dem ci suuf si nga naan Moussa Dramé dañ nga bàyyi mu ñibbi. Mhm. <laughs> mais topp bi. mais nag mais nag suñu Moussa Dramé bu ñu waxante dëgg rek depuis bi nga xamante ni procès bi am na. Euh, gis ñu fi loo xamante ni doy na xel yi. parce que mhm. ñu ngi naan Sénégalais yi attan nañ seen bopp ba pare dëgg la parce que chaque jour Adji Sarr mooy génn. di wax loo xamante ni dara firnde wu ci. ñun audio du preuve de. da ngeen di audio du preuve mais yéen a yéen a Adji Sarr wax ay wax. audio boo xam ne jàppee audio xamante ni. non non audio audio du preuve wala preuve la. sëñ Moussa Kaaral ma leeral la benn affaire bu ndaw. waaw Sénégal. Mm. dañoo maam gars yi di gën naan ci rek compli comprendre luñu sax lu xew. Mm. Macky sax eh, maanaam bu ñu yeboon vidéo maanaam bu yàlla waxoon malaayka ne leen vidéo ba vidéo bi soo ko doon demee fële ak fële laa soxla ñu indi ma ko. Mm-hmm. malaayka yi indi vidéo bi dëkk ne ko jagg ci caméra de justice ne ko vidéo baa ngi. Mm-hmm. Ousmane Sonko mooy violé ndaw ci preuve la leer na. Mm-hmm. te bëggu cee sukkandiku jugé. Mhm. du ci sukkandiku. Mhm. te yaakaar naa ne même preuve ba bugg a amoon. du tee porte day am waxuma ay wax audio nag te audio yi nag audio yi. bu fekkee yàgg ngay pexeel nit. Mhm. man dama ne audio yi ak bi muy lim. pour mu wax ko mu leer man. anduma ak Ousmane Sonko. anduma ak Macky Sall. mais ni nga waxee nii ci défense am daa mel ni nga nekk Ousmane Sonko nga gën a jege àndal. Macky Sall kay. dama dèjà gis ko. dèjà yéen ñaar rek. non non parce que. moom ñu ne àndoo see nga di nga kii di ko. ni muy dégagé nii moom am na fu am na fu teg tànk. dafa am ñuy seetaan ñaar ñii. ñoom kan lañu ñoom dañoo neutre. dañoo apolitique ma bu fàtte ne. ok am na man maa ngi am nañ koo xam ne Bougane Gueye Dany la bëgg. dëgg si am na ko bëgg si instant am na ko bëgg Thierno Alassane Sall xom mm-hmm. te te kooku bëggul Macky Sall bëgguma Sonko am na ko bëgg Pape Diouf mm-hmm. dëgg la kii nag bay wax ci dossier bi li muy soxla mooy yow miy wax li ma bëgg a dégg sa xol gis nga ñuy seetaan ñuy seetaan dañoo intelligent Sénégal dañoo intelligent mm-hmm. sa xol bi bu ci ak far nekkee ak na fekk dañ koy diglu fañ toog kon bay wax dégage sel ah, même boo sérieux bay wax sérieux man man man li la gëm communication dama ne la amul preuve bu ñu mën ci devant des juges. Mhm. ba Ousmane Sonko mucc moo teg fi ne. Mhm. li booy di woote moo fi mu bañ a dem daal ñu. a dem wuyu ji. mais suñu rey de seen bakkan Sénégal am coono. loolu sax moo tane ci Ousmane Sonko. mais sëñ Moustapha sëñ Moustapha moo tane ci Ousmane Sonko ñu bari dee ci tamit. parce mhm. que loolu tamit tane na ci moom. politique bi léegi dafa salté dafa yàqu. politique gu Sénégal toll na foo xam ne tey jii man am na nit ñoo xam ne maa ngi ñoom tey am na tey nekk nañ sax noonu. billaahi te dawar na ko dul moom mu am fu mu far ma am fu mu far. wala mu am fu mu far ne ma neex ma kat da nga war a far. da nga fay far. Mhm. bu ñëwee ba réew mi bu àndee Ousmane Sonko ñu ne la yow force mhm. ñu ne jaay nga sa mhm. ngay wax gars yi di la saaga ndey ndax ndax ndax sa position. mais fu ñu jëm. te pourtant am na ñu yàgg a toog fii Macky Sall def ko neex. mënut a yor gi. barke alxuraan. Macky Sall moo yàq Sénégal ci benn juge. mu bàyyi réseaux yi ku neex saaga nit ku la neex. Mhm. mais réew démocratie lañ nekk rek du démocratie. xam nga démocratie mooy ok saaga ci la war a bokk am nga droit am réew bu ne non saaga bokk ci. kenn waxu dañuy saaga mais mais mais déggoo li mu wax am nga droit. mais non moom saaga la wax waaw waaw defal naa ko ma wax la sëñ bi réew bu nekk ku nekk am nga droit wax li nga xamante ne moo lay metti. Mhm. yaa ngi comprendre mhm. réseaux sociaux yi Macky Sall fi la ko fekk te mënu ko fay yéen. mais est-ce que saaga ci la bokk est-ce que saaga ci la war a bokk. saaga amul même bu dul réseaux sociaux sax. ok même bu dul politique sax du respect. d'accord du respect ci dara. waaw saaga moom du respect ci dara quoi mais réew démocratie pour man ku nekk am nga droit wax lu la neex. ku nekk am nga droit wax xam nga xam nga wax dafa war a am dalil. Mhm. muy preuve. Mhm. dañoo nekk ci réewum démocratie. Mhm. al diini laa diini diini ji. laa laa ñëw ñëw la. yàlla ba mu yónni yéen bi dana ko demal nga hôtel ma jullit ñi ne ñee ñu gëm la. yaay sama yéen bu mujj. waaye nag dana ko. woote rek laa sant nag. force lu ma la kenn ku mu dugg ci diini ji mu indil ko aya ne ko laa ikraha fi diin bul forcer kenn ci diine ji bàyyi leen ñoom ñëpp ku la gëm wuyu ku gëm bu baax. Mhm. comme diine ji nga xam ne mooy lislaam nag yàlla atte nii. Mhm. kon si réew mi kenn xam nañ ne réewum démocratie la. Mhm. waaw démocratie dama ne la. bokk ci xotti xormay xotti xormay doomu bokk ci dugg ci yippi fi nit. léegi ci internet bi benn émission boo xam ne uniquement gis naa fi sunu 24. benn sëriñ bi nga fi dalal. di wax ak moom. ci cadre appel vidéo bu mu def. Mhm. sëñ Cheikh Gaynde Fatma. waaw bi ma ko gisee dama ne sëriñ bi am ki amul mbokk. Mhm. Mhm. lu tax ma ne am mbokk mooy. Moustapha Dramé mu jàpp. Fara Gana Deli. muy sëy ak jigéen ñu vidéo ko. man awma ci lenn lu may rendre compte képp. amul journaliste bu may toogaat di ci débat ak yow. waaw léegi moom est-ce nekkul. non non non defal naa defal naa xam nga émission boobu suñu émission la xam nga émission sama émission la. buy sama talent bi. Mhm. Euh, a dugg foofu. est-ce que moom nekkul moom moom moom miy ah. mhm. képp kuñ fi jàpp ci dara. Mhm. jàpp nañ nit ku la gën a garaaw ci loola. mais gis nga man mosuma yëg ne kooku kooku vidéo boobu noonu. am na am na xam nga fa laa gisee. dama gis euh, benn xale bu jigéen bu nekk benn ci internet. Mm-hmm. mu mu mu dóor ko ci statut am. Mm-hmm. benn micro benn ci internet. Mm-hmm. mu dégg waa ji di expliquer. mu ne waaye mi lan la automatiquement dama dem wëri vidéo bi. bi ma duggee di wëri vidéo bi. pour nga xam lu xew ma gis automatiquement ma ngi toog def émission waaye dama ne la léegi li réew mi moo toll foo xam nit foo nga xam. li concerne nit ñi. Mm-hmm. ak yi la concerné yow. Mm-hmm. ak la concerné penc bi. Mm-hmm. mais loolu ñu xamuñu ko. mais bi muy toog fii nii. yéen la ngeen bëggoon mooy mu leer ci bopp nit ñi. bu dee moom la. mu leer bu dee du moom mu leer. ci ñi ko jot a dégg. ok kon dafa leen waaye moom moo xamut. ne. lu mu tas tas tas tas tas am na ñoo xam si jot. te bu ci expliqué ñoo jot ci. kon moom dafa boppam promo. loolu yooyu na nag la nit ñu war a xàmmee. moo tax bi mu ñemee ne leen. lan la ñuy waxtaanee. <laughs> parce que xamutuma lu mooy. <laughs> fii ku fi ne am nga ci loo ne loo xam ne ñemoo ko ci mbedd mi. xamul lu sa biir nekk. bu fi wutee génn. loolu man du ma nangu wax ci nit ku yàlla bind. Mhm. loolu nag la nit ñi war a yeew jëm koo xam seen bopp. man benn question rek peut-être laa am boo xam ni moom laa lay laaj. Mhm. ci affaire Adji Sarr ak Sonko bi nga xam ni moom la ñuy nekk di débat.